kon mi ngi noonu alxalqa samina wa ishrun ñaar fukk ak ñaar waaye su mi noonu ñaar fukk mi ngi noonu di saytu wàllu mbiru état bi. هذا النزر اليسير ليس كافيا لمواجهة الأزمة المستقبة. mébét yu néew yi li doyul ci dëkk bi. اصمت. اصمت. عليك بالتفكير بوسائل تأمين المال. da ngaa war a xaal da war a xool xalaat yeneen jumtukaay yoo xam ni mën nañ ci amee alal. nee na ko ñu ngi xalaat ci ba léegi leen daal mooy am ñu fexe ba impôts yi ñu koy yokk bu ko déedéet waa dëkk bi dañu nekk ay xar-xar boo leen bëggee imposer di leen jox impôt loolu duñ ko mën a joxe. léegi nañ seet yeneen yoon yoo xam ne moo gën a yaatu moo gën a mat. يحيى علي المقام جناب يوزرسيف كيلو فقي يوزرسيف يلا يلا يلا يلا ماذا تفعل هنا؟ لو يدفي يو بناروس تحية الآلهة على بنتو واسمه تحية الآلهة بالمغرب علي المقام kilifa gi démb Horenhop delluwaat na ca Labeye xaw ma nag lu ñu doon waxtaanee nee na loolu Horenhop moom tiitu ma ci moom xam naa affaire état moo ko jàpp affaire nguur lay jàpp waaye moom yaakaar naa du du wor nguur ja yaakaaruma mu jaay bakkanam ci lu yomb nii waaye tamit Alioune Mawu tey jii daje na ak nga xam ne mooy sa yaayu buur bi. ndax da nga kaa gis waaw nadimatu saydati axbaratni man gisuma ko waaye ki soxna si si wetam moo ma ko wax hadafu ziyarati xatman huwa tanfidu ragabati xam naa daal ziyaara bi li bi tax yaay ji mu koy ziyaara ji mooy jéem a yàqal jéem a def ay pexe ci ki nga xam ne mooy mooy jiita. ama zilta tadkuru qadiyati wa abu biis ndax da nga ndax fàttaliku nga sama diggante ak Abu Biir la taxoon ñu rey Abu Biir man xam naa ko mu ne labbe yi ñoom ñoo defoon pexe moom nee na ko xam naa ne labbe yi lépp lu ñu bëgg pour àgg ci li ñu bëgg rek lépp lu ñu mën pour àgg ci li ñu bëgg rek danañ ko def. فكهنة معبد آمون يرون الخطر محدقا بوجودهم وبقائهم عليهم أن يصنعوا جاهدين للدفاع عن أنفسهم لكني على يقين أن الغلبة في هذه المعركة سوف تكون لي ولربي من أكرم برمنا إن شاء الله علي المقام أمين حوتب حاكم مصر يطلب مثول يوزرسيف الحكيم عنده حسنا سوف آتي رغم أن السيدة تي قد سعت سعيها في تشويه صورتي إلا أن ذلك ليس مدعاة للقلق عندما رأيتني فاركبت اليوم لمست الحقد القديم لدي أقال شيئا فيما يخص علي المقام يوزرسيف أجل qaala innahu yataxayanu alfursata lkay dara mun ko waaw nee na mi ngi def benn bépp pexe bu mu mën a def ba daal di suuf rek dana ko def nee na ko même képp mi ngi fekk moom waaju la yoo xam ni ku dangereux la waaye moom mënu maa tiital moom kon yéen na seen xel dal gis nga mi ngi noonu euh, buur bi moo ko woo ndaxte yaay ji gisee woon naa buur bu waxtaan ak moom ba pare ni ko daal xale bi bëgguma mu nga jox benn benn benn mu jiite fi barab ndax tey mën na laa rey ëllëg Yuusuf mi ngi sàkku ndigal pour dugg si nag. يحيى الحاكم وتحيا السيدة يحيى يوزرسيك الحكيم أهلا بك يا يوزرسيك أراك قد انهمكت في عملك حتى نسيت أنا منشغل في أداء واجبي قال الرسول إنكم طلبتموني أنا في الخدمة soldaar bi moom da ngeen ma أحببت أن أطلع على الإجراءات التي تمت خلال الأيام الماضية لم يتم القيام بأي شيء بعد يا جناب الحاج ما لم تكتمل المعلومات المطلوبة فإن العمل لا ينفع علينا أن نعلم مثلا عدد الناس في مصر كم يبلغ عدد النساء والرجال والكبار والصغار وكيف يتوزعون في كل الأماكن كم منهم يقتلون في المدن وكم منهم يزرعون الأرض وعلينا أن نعلم أيضا كم لدينا من الأراضي الصالحة للزراعة وأين تقع أيضا fan ñaata tool lañ am ci bërëb yoo xam mën nañ faa béy الأراضي الصالحة للزراعة هي فقط على ضفاف النيل وإحصاؤها ليس بالأمر الصعب أبدا بل أظن أن كل أرض ترويها الماء هي صالحة للزراعة في تلك السنوات السبع الوفيرة ليس وحده النيل الذي سيفيض ولكن كل أرض مصر سوف تروى بالماء والمطر بمشيئة الله وما هو الأمر الذي يعجز عنه ربك الواحد سبع سنوات من المطر على أرض مصر هذا يعني أن أرض مصر كلها صالحة للزراعة أولا علينا أن نطلب من جميع المزارعين أن يزرعوا ما استطاعوا مفاضع حشرتهم تشتريه منهم حكومة مصر بسعر مناسب يرضونه ومن أين نأتي بكل هذه الثروة لشراء الحنطة أولا على التسامح الضريبي وثانيا بشراء الحنطة مقابل léegi nañu jënd tamit beneen dugub wala blé boo xam ne dana méngoog suuf si ñu béy ko لحكومة مصر يصبح bu defee lu ci génn nag état moo على بذرها كانت هذه الأراضي على مر التاريخ nee na suuf si bu njëkkoon لحكام مصر Misra moo eh, Misra moo ko moomoon وسبب في بقاء ملكهم وسلطتهم waaye nag ci nguur lépp état moo koy كيف نهبها للآخرين daaw ko may kenn nag ستصبح حكومتنا عرضة للضرر ne kon boo moytuwul suñu état bi dana nekk ay loraange mu ne lépp loo xam ne génn na ci am na noonu ba même ñi ñu nekk ci labbe yeeg yëpp tamit ñu tee ñu jël ci ñoom comme ni ñuy jël ci ñeneen ñi. nee na duñ jël waaye nag duñ jël kenn par doole nag duñ jaay kenn doole di jël alalam. su nga proposition yi mu joxe yu am solo la. أنا لم أتلقى جواب سؤالي بعد حكومتنا سوف تضعف بوهبها لكل هذه الأراضي هذا سهل nee na kon léegi li ñu def mooy la ca génne duñ ko maye maanaam mbay jiw bi duñ ko duñ ko maye noonu. بهذه الطريقة سوف نحصل مرة أخرى على كل ما وهبناه من الأراضي للمزارعين loolu yaakaar naa bu ñu ko defee danañ dem ba. li ñu soxla ci mbay danañ ko béy إن قام الأثرياء والكهنة بادخار الحنطة بأنفسهم فلن يحتاجوا إلى شراء الحنطة منا أنا أطمئنكم أنه فيما عدا حكومة مصر لن يفلح أحد بادخار الحنطة لنفسه بنفسه ألا توجد طريقة أخرى لتأمين الأموال المطلوبة؟ بلى توجد إن سمحتم لي أود أن أخاطب الناس في أول فرصة تسمحوني وأظن أن الناس سوف يتجاوبون معهم إن طلبت مساعدتهم أنا أرجو أن يقوموا بإعانتنا بالمناسبة علمت أنهم قاموا بانتشال شرطة كبير معبرين لبيك am na kuñ ci rey ki doon ki doon ki doon firi gént gi rey nañ ñu ne dafa lab déedéet labu ana waathiq bi annahum qaamu bi igraqih xam ñoom ñoo ko labal ñoom ñoo ko rey kon benn information jox na leen تعني أن الكهنة قتلوه dangaa bëgg a wax ni làbbe yee ko rey عالي المقام kilifa gi أظن أنهم إنما قتلوه جزاء له لما قاله من التأييد لتعبيري Euh, user chief li ru'yakum waajoo ji ni mu doon sukkandiku ci dimbali user chief ci wax ni maanaam wax dëgg anni a'rifu al-qatil wana user chief moo ko nopp فالإخماء لا يقحم الكلمة في تنفيذ أمر من هذا الإخماء قد بلغ طمعهم وإجرامهم أيضا أقصى الحدود الممكنة علينا أن نضع bi amagul fi mu nekk nii dugub ji mu denc pour man ko jox ni ñu bàyyeeku waaye ci seen biir am na ay béykat yoo xam ne am na dara. asbaha annaasu ul'uubatan bi yadi raa'i ghanamin gharib. nee ko ah nit daal mujj na nekk ab fowkaay ci loxo yi ki nga xam ne ab sàmmkat la. ma alladhi yanuuna fi'lahu bihim bisababi ru'ya al a def dara ci kanamu ki léegi ne Youssouf bi mu jël mooy waxtaan ak waa dëkk bi ci programme boobu nga xam ni dañuy fexe ba ni ñu yokk impôt yi ak tamit nan la ñuy mën a def ba état bi am jiw woo xam ne dañ si mën a gis technique soxla jëfandikoo ñu bay lu mu gën a yaatoo bu ko defee lu ci génn euh, état jël leen ko li ci def état denc ko pour man ñu toog juróom-ñaari at yi ñu def tax mu war a def benn discours باسم إله أهل مصر maa ngi tàmbalee ci turu turu yàlla borom mi waa Misra maa ngi tàmbalee ci turu yàlla mi nga xam ni moo tëbb waa Misra may leen may ñaan maa ngi leen di sant ci wuyu si bi ngeen wuyu sama woote bi maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm li tax ma woo woon nag mooy damay sàkku ndimbal ci yéen علينا أن نجد حلا لسبع سنوات من القحط والجفاف ومن المعلوم أننا إن لم نحظى بدعمكم أيها الناس فلن نوفق بتلافي آثار هذا القحط لقد قررت أن أطلعكم على كل الحقائق لتقرروا بأنفسكم لا شك في أنه يتوجب علينا أن ندخر ولكن إن طلبت منكم waaye damaa bëgg nag lépp loo xam ne am ngeen ko ci dugub ngeen ah, lebal ko état bi wala ngeen may ko ndax di ngeen nangu loolu ngeen am ci dugub rek ngeen may ko état bi ndax nangu ngeen loolu. الواضح أننا لا نوافق لماذا نعطي الحكومة ما شقينا في moo tax ñuy jox état bi li ñu yor ci ci dugub man ab ngëbu kii sax du ma leen ko jox ngëbu dugub sax du ma leen ko jox mu ne yow bu fekkoon da ngay joxe dugub bi nga am te laajoo ci dara da ngay mujj ñàkk ndax yow amoo dara أصبح واضحا إذا أن الحكومة تشتري منكم الحنطة إما بالدينار والدرهم ولا تملكهما أو عبر توزيع الأراضي wala sax mu séddu leen ay suuf ngir ngeen bay yumkinuna ta'minu juz'in min al-hinta al-matluba liqa'a kon dañoo war a li ñu soxla ci dugub ñu denc ko bu baax a baax lakin bi ay malin sanaqumu bi bina'i al-makhazin waaye nag ban alal lañ koy jënd ban alal lañ jënd pour ñu mën a bëgg a jënd dugub denc ko ban alal wa min ayna sanaqumu bi ta'min ujrati al-'amilina wal-muwaddafin léegi lii ñi nga xam ne ay liggéeykat lañ ak ay fonctionnaire fan la ñuy jëlee nastari bihi al-qamha min al-muzari'in alladhina yazra'una al-ardha allati yamlikuna euh, dugub ci ak mboq mi nga xam ne moom la ñuy jox waa réew mi pour ñu mën koo bay fan lañ koy jëlee ñun question yi muy posé حسنا أن تقول waaye léegi yow yow laay déglu waxal lan moo tax état bi denc denc dugub wala mu denc alal ndaxte état bi kat fi mu toll mooy tooraalewul woon juróom-ñaari at yi dana ñëw nekk juróom-ñaari at bekkoor. لا شك أنه لا يوجد أي سبيل غير تعاون جميع الناس ومواكبتهم لهذا الأمر ba génn ci lu dul ñu dimbalante ndaxte pare ngeen pour dimbalante yéen seen biir pour mën a mucc alkaane bi waaw loolu kay leer léegi dañoo war a mucc suñu bopp tey ñun dañoo bëgg a dimbalante waaye nan la ñuy dimbalante nan la ñuy def danaa leen di wax nan la war mooy yoon mooy yoon dimbalante bu njëkk bi mooy. mooy ngeen góorgóorlu ci impôt yi ko joxe ñi am alal ak ñi tedd ñi kilifa yi ñoom nag dañoo war a dimbali état bi jox ko lépp loo xam ni ay bénéfice la ñu jox ko état bi. فكل من يقوم بدفع الضريبة المتوجبة عليه قبل سنة من موعد استحقاقها سنقوم فيما بعد بإعفائه من تسديد الضرائب لمدة سنتين nañu jox njëgu ñaari at boo xam ne nag joxe nga léegi lu tolloog impôt juróom-ñaari at lay jox nag impôt lu tolloog ci alal lu tolloog juróom fukki at ak ñeent ah man de loolu bu dee loolu man pare naa ko joxe man mën naa ko joxe tey at mi yëpp li ma war a joxe mën naa ko joxe tey bokk na ci li nga xam ne dina dimbali état bi nag mu jéem a jëndi problème yi nag mais léegi tamit dañuy topp tamit yoonu fay aw na yi ñu fi jaaroon mooy réew réew ومناعتهم لتأمين المال اللازم لشراء الحنطة bu ko defee la koy jënd ñu mën koo jël nga xam ne duñ duñ يشاركوا في هذه الحروب léegi nag guerre boobu dañ cee war a dañ cee war a dañ cee war a participer lu dugg mu ni ah kon da nga kon da ngaa bëgg ñu alal suñu bopp balaa bekkoon day ñëw ñu rey suñu bopp dugg ci ay ay xeer ñu pare wuñ pour pour guerre de. اهدأوا اهدأوا dal leen leen man mi tamit bëgg xeex gënalu ma bu ngeen d'accordul ci guerre bi kon nañu fexe ba dajale alal joo xam ni ci ngeen mën a jël ku ci nekk ci yéen war naa préparer boppam ci jéem a jënd al dugub bi doon tolloog la muy soxla. ah bu dee tamit foofu lañ mën a jaar ci géere lañ mën a jaar pour am alal kay ñu pare nañ. mu ne loolu loolu du maanu de def loolu xeex loolu pour delloowaat bi état loolu d'accord ah kilifa bi ministre bi yàlla dund waaye ñun d'accord nañu ah léegi mbokk yi gars yi d'accord nañu moom gis nga ñaari yi mu tëraloon ba njëkk mooy ñu joxe impôt yi képp koo xam ne joxe nga impôt deux ans dañ la koy delloo ci deux ans képp koo xam tamit joxe nga impôt lu mat sept ans ñu jox la ko delloo la tollu juróom juróom fukki at ak ñeent mu ne gis ngeen lii yuusat ci tëral yëpp seet nu mu dalee ci kaw ci kaw église kon ni ñu war a def ñun mooy ñu fexe ba denc suñu suñu li nga xam ne moom lañu état doon jox ci dugub ñun ñu dencal ko suñu bopp bañ koo jox kenn bu ko defee loolu ñu delloo ko ci affaire église bi ñoom ñu bayal ko seen bopp sinon bu ñu ko deful moom réew mi moom dana dellu ci loxoy jaam boo xam ne noonu la woon ci ñun. waa xam nga ni ñu bëree bëri gëm nañ ci ni ni Youssouf ko ñu yónni la. ci jàpp ci sababu ah, loolu mu leen wax ci ci firi ak loolu mu leen wax tamit ci juróom-ñaari at. nee na doomu aadama bu am xel moom du làmbat. لكن بالخفاء والمن دون أي ضجة فإن لم تكن مخازن المعبد ممتلئة بالحنطة عن آخرها فكيف لنا أن نحافظ على استقلال المعبد في من الأيام وكيف لنا أن نواجه يوزر سيف ñu jaamaarloo user siif ndaxte li mu imposé moom li mu tëral loolu la ñuy mujj def ca loolu la ñu gën. لا شك في أن يوزر سيف سيجعله يركع أخيرا mooy bu fekkee def nañ loolu nag euh, fexe ba li ñu am ñu téye ko bañ leen ko jox usage dana reconc suñu kanam. Euh, man ta euh, ibqa yow taxawal. uridu minka shaxsan li yaquuma bi tanfiidi muhimmatin xatiira pour mu defal ma mbir mu doy waar. loolu laa bëgg jëlee sa kenn sa gars nu mu gën a gaawee fexe ma ni ma benn élément. anil ma koo xam ne daal. dafa am beneen soxla bu ma soxla bu doy waar boo xam moom moo fi fan kon moom mi kii ci plan B bi c'est-à-dire fexe ba éliminer les exercices ci la nekk waaye mbokk yi Côte d'Ivoire yi noonu nekk ci lalu deewam. العفو عني في هذه اللحظات الأخيرة يا في nga toll nii laa bëgg daal nga daal may jéggal rek te yàlla tax أعلم أني لم أكن لك زوجة صالحة xam naa ne nekkuma woon jabar ju baax ci yow ولم أقابل إحسانك كما ينبغي jëf defaluma tamit defalatuma lu defaluma la lu baax مروءة على الدوام والآن هل عفوت عني waa léegi nag maa ngi laaj ndax baal nga ma ci heure yi laa bëgg nga baal ma. nahnu kilana qad asa'na ila Yuzarsif. ñun ñaar ñëpp dañoo def lu ñaaw Yuzarsif. layta law anna Yuzarsif kana xaadiran huna. aka neexoon Yuzarsif teew fii waay. wa talabna minhu an yaafuwa anna. bu ko defee bu teewoon ñu daal di koy jégalu ma ak yow. ñaar ñëpp daal Yuzarsif lañ tooj. بذل عبادة آمون laytana qumna bi ibadati ilahi yuzarsi aka neexoon man bàyyi naa jaamu yàlla amun aka neexoon ma jaamu yàlla yuzarsif aka neexoon ma gis yuzarsif ba yuzarsif soo gisee yuzarsif rayti yuzarsif Ah, mbokk yi gaañu na gis ngeen yéene ju rafet la doon bëgg a demee waaye àggul doy war a ngi nii na bàyyi naa gëmuma yu ah, yàlla jooj ñu doon jaamu muy amoon ak neexoon ma gëm yàlla yu zër siif waaye nag soxna si maa ngi lay dénk boo gisee zër siif àggalewul daal di gaañu ndeysaan xam naa daf ko bëggoon yóbbante ni ko boo gisee rek ah, nee ko gëm naa yàlla na ma ñaanal yàlla jéggal ma waaye mbokk yi gis nga soxna si moom tamit kon Zuleyxa borom këram gaañu na muy Dibaar kooku mooy docteur mooy Sénégal. mbokk yi gis ngeen UGACIF euh, joxe bi nga xam ni moom la bëgg a joxe proposition yi nga xam ni wala ay gaaralam yi nga xam ni gaaral na ko waa réew mi gaaral na ko euh, waa dëkk bi ci wàllu mbay mi ñu war a def Roudamoun mi nga xam ni moo jiite armée bi nekk ci palais Potiphar mi ngi sàkku digal pour dugg si. ngeen Roudamoun mi moo yoroon Youssouf. moo ko doon entraîné moo ko doon tàggat daaye daa mel ni dafa am xibaar bu muy indi de فليسلم الله الحاكم أمن حوطب الشام yàlla na yàlla nuyu defal jàmm min Hawtin ki nga xam ni moo yoroon armée bi Potifar kilifa Misra léegi nag génn na àdduna tukki na nag fas yéene jëm ca sow ba noonu la ñuy tàggee xam ne sow ba rek mooy fi leen denc kon xibaar baa ngoog tàggee nañ leen Potifar كان بوتيفار رجلا عظيما وقدم لمصر حكيم حكمات جمة وجليلة liggéeyal na Misra liggéey bu rafet léegi Misra nag dana sacrifié wu ngir fay ko lu baax loolu mu def ñi ngi ñi ngi lay ñi ngi jottali ñu suñuy njaal waa pale ba yëpp dinañu préparé nag participer ci denc gi ñu ko war a denc kon pale boobu mu nekk joxal ñu suñuy njaal ci ñoom waaye mu ni waaye aada yi fi amoon moom dañuy dañuy leeralaale kan moo wuutu Potifar ca place boobu nee na ko bu ñu koy gungee di ko suuli danañ ko wax kan moo koy remplacer Horin Hob mii daal yaakaar naa ni daal moo gën a méngoo ci remplacer ki nga xam ne mooy la Potifar. nee na xalaat naa xalaatal naa ko beneen place bu gën a yelloog moom mi Horin Hob. nee na ku dul moom daal mënoo koo yor dem leen demal waxal gars yi ñu préparel ma sama waruwaay bi pour ñu mën a dem daal di koy kii gis ngeen yaay ji li mu wax nee ko ci aada dëkk bi daal mooy buñ demee ba koy denc ci la ñuy waxaale kan moo koy remplacer gis nga li muy def ah, yëpp Yuusuf lay bañ mu ak ci affaire bi gis nga alal ji ñu dajalewaat pour fay ko keneen pour mu rey. junni 60 مليون لكن ليس من اجل علي ربحنا اريد واحد بور يوزرشيب نك 10 اضعاف هذا المبلغ ان لم يناسبك الامر لي ngeen ma jox daal fukkam laa bëgg ngeen dolli ma ko عالي المقام waaw su ngeen ko mënul ngeen wuti beneen waay جئت بخبر سار لعالي المقام aywa indil naa la xibaar bu mbégte waay Alex maa indil naa la xibaar bu bu kontaan lool Côte d'Ivoire a ko waaw léegi rek daanaka une heure après la de <laughs> léegi danañ ko denc léegi ci kanam <laughs> kontaan nañ ñoom day daal waaye léegi taxaw leen léegi man dama doon wuute ci ray gi léegi am nañ beneen beneen plan nag léegi ray gi daal moom moom la ñuy mujjee def. léegi buñ koy buñ koy denc moom Potifar Amin Xawtib dana dana wax kan mooy remplacer Potifar bu dee keneen la dénk ku dul Yuzarsif kon bu ko defee lañ bëggoon am na bu dee Yuzarsif nag la la tànn la tànn pour mu remplacer Potifar. kon kon liñ bëgg a def nag dinañ ko mën a def foofu lañ koy rayee. user moom dañ ko war a éliminer dañ ko war a rey ñu ko waaw loolu kay moom it foo ñu def ko mun ñoo bañ a def loolu rey ko rek leen léegi leen nay am bu fekkee user joxuñu ko place bi kon garaawul jëratul rey bu fekkee moom lañ ko jox nag moom ñu rey ko rek waaye ndeysaan kon ñu ngi indi li usership tàgge bi nag xam ngeen moom nekkatul ci palais Potifar bi léegi ci palais buur mag bi la nekk bàyyi xam nga li xew ci biti Côte ah gaañu na ñu ngi noonu di ko yóbbu ca Sow ba Côte d'Ivoire ñëpp ñu ngi préparé kilifay dëkk bépp pour dem ànd pour dem gunga ji ko. sey ndeysaan. te moo ko gis ngeen yal na yàlla yërëm Côte d'Ivoire. nit ku baax la woon man amal naa ko bor bu rëy rëy dundam gi lu bëree bëri def na ko ngir man ah mbokk yi gis ngeen ko noonu nag wala ngi nag ndeysaan

borom këram ndeysaan noonu di yóbbu ndeysaan bu di ko denc waaye mbokk yi gis ngeen yu zat ci xutba discours bi nga xam def na ko ak nit ñi dinañu d'accord ak moom te ni ñu war a doxalante seen biir kii ku jàmbaar la te ku ñuy tiitaroo la wax moo doon dimbali Potifar ci lu bëree bëri kon moom xamul xamul xamul xamul noteel waaw géer yu bëri bokk nañ kon jàmbaar bi Amin Xawtib Amin Xob mii la war a tànn mu wuutu Potifar kii moo gën ci xilaafa bi moo ma ko war a remplacer waaye man damay damay fikir baax est-ce que nañ ko fal Amin Xawtib daal dafa gën a jéng jëm ci Yusuf moom. nga weerante yi léegi parce que fii bu ñu dencee général ba pare léegi nag ci la buur bi di wax moo koy remplacer. gis nga ñi ngi werante ñu naan Colin Hope moo ko remplacé ñu ni ah jaaxal de mooy euh, buur moom dafa gën a bëgg rek yooyu daal la gën a bëgg. kaddu yi yàlla lay tàbbal. kaana Potifar aziman wa qaa'idan laa'iqan Potifar góor gu tedd la woon. wa mustashaaran ah, njiit lu mën a mënoon la woon. waaye ku ma daan diisool la ku xereñ la woon. gis naa ko ñeent fukki at yoo xam ne liggéey na ko ànd ak mat matal kóllëre. ku daan liggéey la woon ci njàmbaar. ci kilifa gi jiitoon Misra. waaye di jiite armée bi tamit waaye tamit di def ay jaloore yu bari duñ ko fàtte mukk ci liggéey yu mu def sama bàyyi liggéeyal na ko lu bëree bari muy amel xabdib liggéeyal na réew mi tamit ak waa réew mi maa ngi koy ñaanal mu noppalu noppalu gu sax dàkk ak dund guy sax dàkk ci beneen àdduna maa ngi am rëccu tamit ci li ma ko ñàkk a defal dara ci ay atam yu mujj سيكون يوم انكسار يوزرسيف بمشيئة الآلهة هورن هوب سوف يقوم بتنفيذ مجرد وصوله إلى الحكم yaakaar nga ni usership danañ ko danañ ko seetal ci liggéey pour mu àgg ci état bi maanaam àgg ci place bu mag yaakaar nga ni dina ko jotam comme niñ ko niñ ko ni ko aada yi xamewoon ni ñu ko daan defee noonu léegi nag dañoo war a seet kan mooy remplacer kii Potifar kii buñ koy denc waaye jamono lii nag fi mu nekk nii nag gisuma benn góor bu ko gën a yelloo ci palaasam bi ku dul Youssouf ki nga xam ne moo doon ànd ak Potifar bu yàgg moom la waa Misra yëpp wóolu kon maa ngi maa ngi teg Youssouf mu nekk mu remplace Potifar mooy azizu Misra bu mag mi mooy sama conseil Dorin Hope tamit gis naa ni moom gis naa ni soldaar bu jàmbaar la. moom mooy jiite armée bi léegi moom place boobu laa ko jox ñoom ñaar ñëpp maa ngi yaakaar ci ñoom ku ci nekk nag la nga bëgg na nga war a def sa liggéey nga def ko na mu waree ñu góorgóorlu tamit Misra gën a jëm kanam gën a avancé ci liggéey boobu ñu leen dénk kon léegi bos yi leer na kon USAID moom la jox place su Côte d'Ivoire mooy mustachar bu mag bi mooy conseiller buur bi waaye tamit euh, lépp lu jëm ci liggéeyu état bi moom lañ ko dénk. ki nga xam ne mooy Hörring Hopp moom liñ ko dénk moom li nga xam ni mooy mbirum armée bi waaye mbokk yi waa làppe yi kontaan nañu de te <laughs> yaakaar tas na ndeysaan Yuusuf laysa illaa gariiban lakin Hörring Hopp huwa dëkk fi bokk fi Orin Hope daal fii moom fii la juddoo moom lañ ko waroon jox kon Orin Hope daal léegi USAID dafa koy jiite te mu jiite wu nekkoon ci kanam kii doomu kii xamul dara buur bi dara xamu ko هؤلاء جاءوا إلى هنا لتنفيذ غاياتهم فقط لا علاقة ñii amuñu benn relation pour war a gunge sa sëriñ bi jox ñu ndigal rek ñu dem denc ko nee na nee na ko yooyu bàyyi ko bàyyi ko mu amul solo nañ dem baax na amul solo parce que de la ko kii wax dëgg la nit ñi comme ñu gis ñuy werante rek di diis mu ne ñii loolu indi leneen moo leen fi indi woon waaye du gunge gunge sëriñ bi gaañu nii kon ñun nañ dem ñun ñi nga xam loolu lañ tax a jug nañ dem ñeneen ñi nga xam ne werante lañ ko ñu bari leen a toppatoo mooy kan mooy kan la ñuy fal rek après moo tax gis nga leen ñu taxaw tuuti ñooy gunge ki nga xam ne mooy Modivar euh, ñi des buñ pare dañuy ñibbi dem seen yoon. يطبق الحل ما ارتأيناه في البداية هيا أخبرني كيف ركبت léegi nag plan bi ñu tëraloon léegi moom lañuy doxal kon mi ngi capté wax leen ko léegi na a user oo mooy seen plan B plan A bi mooy bu fekkoon dañoo fal keneen ku dul user kon user ñun soxlaatuñ ko amul problème mën nañ koo bañ a rey waaye plan B bi mooy ñaareel plan bi mooy bu fekkee ni user lañ jox place bi nañoo xam mi ngi capté ma nga xam moom lañ tëjandoo woon moom ca kaso ba mooy métier am léegi nañ ko na exécuté mbir mi maanaam na daal di rey Horin Hop. waaye mais jaaduwul yow yaa waroon a wuutu kii Côte d'Ivoire yaa ko waroon a wuutu nee na ko waaw li nga wax am nee na man xam naa ni man gerte la. man mbirum bay mënuma ko mbirum état mënuma koo gérer man damaa jàpp ni buur bi lim tànn moo gën ci man mu kon yaa jiite armée bi nee na ko kon loolu lañ la dénk mu ne waaw nee na wax na dëgg loolu am na vraiment li am daal moom mooy li mu xam vraiment ñu bàyyi ko li nga xam ne moom la xam moom la miin kon gis ngeen xoolin xob moom vraiment wax na lu am solo waaye mbokk gis ngeen usagte mi ngi ci biir nit ne dafa marqué wu ànd ak kële nga xam ne mooy Benarouz ndaxte comme ko xam ne léegi mi ngi ci danger nit ñaa ngi koy wër pour rey ko donc euh, jaadootul mu génn noonu nee na Potifar ku baax la góor gu baax la woon yàlla ko yàlla yërëm nee na ko yow moo taxoon ñu mbugal la moo taxoon ñu tëj la ay at ci kaso bi nga koy seedal lu rafet loolu nee ko ma waaye ba tey dama koo respecté lu baax rek laa ko jàppal sama xol bi. comme nam ko doon defee ak magam ya rek ndeysaan ليت لو أني تمكنت فقط من دعوته إلى دين جد إبراهيم الخليل ak a neexoon ma man koo woor ci diine sama Ibrahim عنه وأن يجعله قرن لطفه ورحمته maa ngi ñaan yàlla mu baal ko ca def ko muy ku jege yërmande yàlla subhaanahu wa taala préparé leen mbokk yi Youssouf ñaanal na euh, Potivaar waaye Potivaar gis ngeen ko tamit bëggoon na lool yéen a dugg ci diine yi euh, nga xam ni moom la Youssouf di woote yéene woon na loolu te ngeen du muy dee la mu wax mu ne ak a neexoon bala maa dem a gis weer si euh, ba mën a dugg ci diineem ji ndax weddi naa yàlla ji nga xam ne moom la waa dëkk bi jaamu ndeysaan di wax soxna si nag naan ko bis boo gisee user siif bis boo gisee Youssouf war daal di gaañu kon yéen ji amaana dem na moo tax Youssouf ñaanal na ko yàlla jéggal ko Youssouf tamit dégg nga li mu wax ak neexoon ma gis ko ba dugal ko ci diine ji sama maam Ibrahima mu ne jooy amul amul njëriñ. nee na ko Youssouf xalaatoo Potifar. nee na ko yow ba nga ko waree bëgg bëggo ko woon ba mu sàkku nga bëgg ko bëggoo ko woon dëgg kon joy jëru ko nee na daal garaawul wa in kuntu xazina ala mawte doonte jàq naa ci deewam gi tamit ma yuxzinuni huwa al ada alladi adxaltuhu ila li ma gën a jàqloo ci dee gi mooy loraange nga xam ni dugal naa ko ci عندما استسلمت لها lor naa ko wax dëgg lu bëree bëri nag. أنا أعتبر يوزرسيب سببا ba ma dugal ba ma ba ma jébbaloo ci sama bànneex ci laa ko lor. قمت بتحذيره nee na ko yooyu si moo la teg loraange yëpp. وقلت لك إنه سوف ñaata yoon laa la doon mooy tëloo وحياتك الهانئة لكنك لم تصغي إلي. nee naa la woon Youssouf dana yàq sa dund yàq sa dund njaboot. waaye daaw ma dégg daaw ma dégg de yedd naa la ba tàyyi. لا Youssouf mi ngi noonu. Youssouf dugg ci du lool du loolu. man dong la man maa doon def ay pexe waaye du Youssouf man maa def bàkkaar. man maa ñaawal sama digganteeg Potifar ak sama digganteeg Youssouf Youssouf kay deful dara. lépp daal bàyyi leen ma ko rek man la Yuzarsif garibun laysa illa la yanbaghi an yatasallat hmm? ala muqaddarati Misr Yuzarsif ab dëkku fi warut a jiite dëkk bi warut a jiite dara mu ne waaye nag ci Misra fi la màggee fi la yoroo moo ñu gën a xam lu bëree bëri ci li ñuy def lan moo tax joxoo horin ho place boobu comme ni ma la ko waxee woon may sa ndey soxna si horin ho affaire xare la xam. قيادة الجيش jiite mbirum mbay ak état mu mënu ci da armée léegi horin hob li gën a yell ci moom lañ ko jox mooy mbirum armée bi yéen ñëpp juum ngeen yaag sa jëkkër Awizarsiilu yéen gëmu leen yàllay Misra gëmu leen Amun yéen ñëpp benn boole ngi benn benn loxo ngeen contre yàlla yi nee naa kilifa gi ñu wax Awizarsiil nag mi ngi dugg si ndeysaan ñu noonu ànd ak Malik ibnu Zaara waaye maire bi de boo ko xaar suba la ko yeele que bu maire bi demee mu des fi si des fi day xaw a yéeme moo tax ñu ko na ci topp rek ngir rafetal Yaxya Yusarsif al-Hakim. yàlla na kilifa gi dund. Yusarsif mu xereñ mi yàlla na nga dund. yaa ngi xam ne yaay kilifa gi nee na ko li man jox daal muy wuutu kutibaar kontaan bu dee yàlla moo la tànn ngir risaala bi adduna bi waaw kon bu la keneen tànnee pour nga jiite misra kay kooku moom amul problème yow kay mu ne yow yàlla nga lépp loolu yow ku mu wóolu nga sama wet kan laay tànn su ma la tànnul mu jiite misra kan laay tànn. kan moo gën a man liggéey bi ci yow ku la ko man kenn amu amu fi mu ni sant naa la yow kilifa gi maa ngi ñaan li li nga yaakaar ba tax nga dénk ma ko yàlla naa ko matal boo koy gis ngeen ñële euh, ñu ngi ñu ngi ñu ngi nekk nag di jaay euh, commencé nag te dugub ji dañ leen waxoon lu ci bëri nañ ko denc li ci des ñu seet nuñ koy def waaye gis ngeen ña ngay commencé jaay ñoom ñi nga xam ne ñooy labbe yi il ngay mooy ñaata kees nga am ndax mën nga cee dool dara su amee dinaar moom amul problème dana mën a jaay. nee na ko prix bi dafa wàccaat fi mu nekk nii. ñu bëri nag dañoo fas dañoo denc seen kii bi nag dañoo commencé denc seen seen dugub ji. ñu daal juróomi dib na lañ man boo ñu mënee jaay lu jëm ci lu dugub beeg yooyu ñu yóbbul ko ci église moo gën. léegi nee na ko lii danañ la ko jox léegi nag saa yu ñu ëllee li ci des rek ñu jox la li ci des te gis nga dañ ko interdire loolu dañ ko tere fi nekk ci réew mi euh, ci façon jaay boobu dañ koy tere. ndax dañoo wax ni léegi ñoom li ñu def église mooy dañuy fexe ba récupérer marché bi li fi nekk yëpp comme que ni ñu joxoon nañu ay alal ak ay hadiya ñu dajale xaalis boobu ñu dajale moom lañ bëgg jëndi lépp lu nekk ci dugub lu état war a jënd ñu jël ko dend ko denc ñu ngi commencé jënd di ko denc de bële bi. léegi nag ñu ngi commencé daje alal mu tax terewu leen ko. جيدا أن الحرب القادمة هي حرب الحنطة. mu ne xam na ni guerre bi waaj a ñëw geeru geeru xinta la maanaam geeru geeru dugub la léegi moo tax labbe yi ak ñi mel ne ñoom ñu ngi denc alal ñu ngi denc ñu ngi jënd di ko denc léegi nag dañ koy denc ci anam boo xam ne anam bu baax la mais man daal li ngeen bëgg a wax man nan nan lañ koy man maanaam denc kii bi nan lay nekkee ku gañe gañaay ci guerre bi léegi problème bi mooy nan lañ koy denc foofu la affaire bi nekk nee na maa la wax ni ñoom façon bi ñuy dencee du yàgg dana yàqu day mujj yàqu ñun ci su yoon wi ñu tëral mën nañ koo denc denc boo xam dañuy mujj. أنا لم أفصح لأحد بعد عن سر طريقة nee na Youssouf daal saa yi lu lu bon lu nekk rek mën na koo fal هذا السر من ربي nee na man am naa technique boo xam ne moom la ñuy denc li nga xam ne mooy dugub jeeg bële bi ولكن إن وضع ثقته بي bu mu bu fekkee kilifa gi jox na ma ndigal dinaa ko feeñal li gën daal mooy denc bi secret boobu na ngeen dencal ma ko kenn bañ ko yëg man kay wóolu naa la bismillah bu fekkee jërul jërul siiwal mën nañ ko bañ a siiwal amma kayfiyatu idraki dhalik fa amruhu ilayk li may xalaat daal mooy aamoon ak labbe yi nu ñu leen di alake daal loolu mooy li gën parce que ay yàqkat lañ maa ngi lay dig ni هي بداية انهزام الكهنة والأفرياء لي njëkk ñëw ci bekkoor beeg yooyu منذ طفولتي كنت شاهدا على طمع loolu ci la bekkoor bu commencé ñëw rek ci la ñu daanu ñëw وخفة عقولهم nee muy amoon ak ñoom ñëpp li leen intéressé mooy seen i biir sama mer nag yokk na ci ñoom bis nekk day gën am na ku leen kalimaan ñi nga xam ne tamit ñooy seen nguur gi ñor yëpp danaa ko daal ñu ko d'accord naa ñoo bokk benn xalaat. waaye nag li ma bëgg daal mooy nga fexe ba narmeel leen ñoom ñëpp nga mujjee ci aamun nag place bi aamun am ci nit ñi dafa bari ca dafa yaatu feeg ñaar yooyu moom ñu ngi fi moom fekk aamun a ngi fi labbe yaa ngi fi tamit kon danañ. pour mbëkkaleen dana jafe waaye nag gis naa ne seen i jamono sore léegi daal ñaan mbir mi yaakaar du yombe noonu seen bakk seen bakkan yëpp tasaaroo na ci topp nañ seen bakkan ji fépp waaye sama yaay mooma jaaxal هذه معركة يا جناب الحاكم waaye damay ragal ni sama yaay bu ñuy dal sama kaw sama yaay la njëkk loolu mooy leen واحتمال التطاول على الحياة والمقلب السوء ليس احتمالا عبثيا affaire en secret daf ci am solo كما فعلوا في السابق ومكروا السوء بحياة الحاكم الفقير وكل أفراد عائلته ay pexe ci kilifa ga muy amin xawtib ak Salis Ba. janaaba Yuusuf. sakkoon nañ pexe pour rey ko noonu la ñuy defee tamit Yuusuf. أولا استطلاع أمر عيون المعبد داخل القصر. ban nga xalaat ci génne leen ci palais bi ñoom ñëpp. ومن ثم مراقبتهم nee nag léegi rek moom seen mbir leer يتم محوهم léegi nañ leen di surveiller di leen xool di leen saytu bu ko defee danañ dem ba mën leen fay jëlee ñoom ñëpp ah kay قصد جناب يوزارسيف ليس القتل man d'accord ma daal ci affaire rayante gi أقصد أنه لا حاجة للقتل nee na Youssouf li mu jublu du rey يمكن فقط إخراجهم من nee na jërul xeex قلت إنك قمت بتحديد عيون المعبد dañ leen war a génne ci palais bi أجل سيدتي العظيمة سوف أطلعكم على أسمائهم قريبا loolu mën a nekk la لا داعي للقلق dinaa leen wax ci fi ñuy nekk seen mbir jërul yàkkamti jërul jërul tiit jërul jaaxle gis nga mbokk yi gis nga am na ko doon déglu gis nga am na benn agent secret bu ñu yebaloon nag ay maamu moom jot na information suñ gé suñ génnee pale bi day na nga moom saytu leen ko bu génnee pare bi rek na nga ko wax ni ni ferkapte man laa lay fekk léegi gis nga ferkaptaa ngoog